dañ ko bàyyi woon ci loxol euh, conseil constitutionnel ci dialogue politique bi weesu société civile ak ñeneen ñoo proposé ne loolu euh, dafay tax dafay néewal doole processus électoral bi ñu ne donc li nga xam ne moo jaadu mooy au lieu que loolu ñu koy bàyyi ci loxol conseil constitutionnel dañu war a def ci loi bi ne conseil constitutionnel dafa war a taxawal benn commission benn kuréel boo xam ne ña ca war a nekk Euh, kii bi daal leen lim dialogue politique bi lim leen. loolu moom avancé la loolu moom euh, avancé la loolu moom dafay gën a yokk ndëgër laay euh, démocratie day tax également parrainage bi nga xam ne vraiment daf ci amoon ay matadi yu bëri matadi yu wàññeeku day tax acteurs yi gën a am confiance ci ci parrainage bi.